تسليما لبيك نبي وسعديك والخير كله في يديك عبدك الدريف المقر بذنوبه التي لا يغفى عليك شيء منها ولا من غيرها من الجليات والخفيات تائب إليك في هذا اليوم وسنة لعبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آدما من كل ما تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الشهيد محمد بن محمد بين يديك مصليا على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلتي اليك في هذا الكتاب فيقول اللهم صل على jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi fii nag eh, ci mbaar mii nga xamante ne mën nañ ne mboolem waañ yi nga xamante ni wala lépp ci waañ yi nga xamante ne ñi ngi togg ay ñam di ko indi ci bis bi mën nañ ne fii lañ koy dajale waaye ñu doon commission boo xamante ni ñoom it dañoo takku laxasaayu di ci liggéeyal Serigne Touba ci anam bu sell woo xamante ni ku fi ñëw rek saxol dina sedd seen taxawaay bu am solo macha allah. ngeen gis noonu mbokk taalibe yi bàyyi ko fu nekk biir dëkk bi ak li génn dëkk bi nit ñi togg fenn fu nekk ñëw fii ci dëkk bi ñëw fii ci jaal Dialibatoul Marakhib indi fi seen i xéewal ñi ngi taxaw ak Serigne Ousmane ginnaaw Serigne Diallo mi nga xamante ne moom mooy jëwriñu waañ wi ak Serigne usmaan ñi ngi taxaw suñu loxo càmmoñ ak Serigne mbay Ngom macha allah Serigne Mbaye bëgg ñaari kàddu rek ci taxawaay bi nga xamante ne am ngeen ko ci màggalu xasida yi pàcc bi ngeen féete mu doon pàcc bu naqaree féete ndax waxtu yi ñëpp a li nga xamante ni moom ngeen yor muy wàllu xéewal yi naka ngeen koy organiser ak naka ngeen koy taxawoo ba sa su nek ku fi ñew mëna a rafetlu seen liggéey seen bay wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo leen di nuyu yeen wa tuba Vision di nuyu wa senegal yépp di leen jaajeufal ci liggéey bu am solo bi ngeen di liggéey waaw ci tontu lu gatt rek liggéey bi mom ni ngeen ko laajee laaj ngeen laaj bu am solo ni nga xam non lañ koy taxawoo ba suñ tuwaar yi ñu ci defal tawfiq sa su ne da nek organisation bo xamanteni bu yomb lay don rek bo xamanteni saa suñ tënkoon rek day yomb lijjanti te moo di kilifa yi nga xamante ni sëñ bi da leen jox ay dépense ñu togg di ko indil euh, fii ci fii ci daara ji dañoo organiser ay waañ yoo xamante ni ñoom ñoom ñooy recevoir togg yooyu waajal nañ waañ wu ne soxna sa koy soxna sa ya fay indi ay toggam nga xam ne buñ nee waañu diw sàngam moo yor dañ naan ah soxna sàngam ak soxna sàngam soxna sàngam la sëñ bi jox euh, ñoom lañ féetale ci waañ woowu nga xam ne lañu togg loolu bu ñëwee day ñëw bés bu ñëwee ba ba ci fii ci mbaar mi ba ki xam te ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxoom mu war ko saytu bu ko saytoo ba noppi day dem ci directement ci site booba bu ko defee fekk na fa mbooloo moo xam ne nag waajaloon nañ seen bool ak seen i paan ak seen i raxasu waajalaale tamit site ba nga xamante ni moom lañ séddale nga xamante ni Euh, kenn ku ne xam nga fa nga war tambalé ak fa nga war yam da naka da nga dem tax ba xam ci waxtu temps bi ko wara sédélé nga xam ne bu ñëwee bëri rek dir bu gatt da ngay mëna sédélé li nga bëgg sédélé ci dir bu digënté bu gàtt daal di dellusiwaat toogaat non dal moy organisation bi nga xamanté ni ci la dox at yi yépp sa su ne ñu ci gëna am euh, amélioration di ci gëna am ay yenen euh, xalaat yu bees di ci gëna am expérience di ci dox looloo waral looloo jural lii tey ba mbolam ni mu toll ni ak kër gi ni mu nit ñi ni mu bari ni ay nit saa su ne ñuy mën a añ ci diir bu gàtt te ñëpp di añ loolu rek moo waral lii moo waral ak ndimbalu Serigne Touba. mu luy naqaree lijjanti fii ci biir barab bi ndax gis nañ ne macha allah mbokk taal bi ñu ci bari waxtu wi dañuy dawandoo ñëw fii loolu naka koy gérer ba saa su nekk li ngeen di def fa doo leen ci jannaxe ba li nga xamante ni moom moo fi nekk ci ay mbooloo ngeen satisfaire leen ci li nga xamante mooy xéewal yi. waaw loolu dafa mel ni nag la ci suñu xol a kon bu ñu ñëwee du ñu bett ndax day mel ne kon dundoon nañ ko ba noppi ndax loo xam ne mi ngi ñëw moom bu egsee day mel ne dundoon doo doo doo dootu bett ci yow ndax day mel ne yë dundoon ko ba noppi donte day doog egsi ndax yëg nga yëgoon ni lay demee moo lay dimbali ci ba ngay mën a contrôler sa xol di mën a contrôler euh, ni ngay li ngay def ba mën ko teg ci yoon bokk nañ tamit li ñuy dimbali mooy fii dañ ko def ay barrière ñi nga xamante ni ñooy commission yi nga xam ne ñoo ji ñooy njiitu waañ yi ñooy dugg bu ñëwee li nga xamante ne moo jëm seen sit bu ex bu duggee ñooy woo ña ko war a jël ñu jël ko jël mbooloo mi nag li ko waral moo di ñiy togg ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi toggloo dañu ànd ak mbooloo bu ñëwee te kenn ku ne day ànd ak sa mbooloo bëgg dugg fii te it nit mënta sonn ba ci togg jëlee ko foofa ba ñëw egsi nga ne ko doo dugg da ngay taxaw fee di ko joxe loolu day xaw am na muy def moo tax dañuy obligé bàyyi ah nit ñu ko jéem koo gérer ci ni nga xam te noonu la ko yàlla dogale jéem ko te xam ni liggéey benn bu ne eh, ni ma dégg eh, sëñ Bas eh, doon wax barki dem bo naan yàlla comme lañcal boole cab kuruj boole <laughs> wann maa boole yàbbi waaye liggéey bu mën a doon it faaw mu am yu mel yu demee noonu waaye yow mi liggéey yaay ci sa xol macha bokk yi nii rek lañ koy wéyee ak yéen koo xamante ni it bokk nga ci ñi ñi nga xamante ni a yor màggal gi allahu rabbi ñu fas yéene laa dégg suñu micro ngeen gis na noonu ñu ngi woon fii nag ci waañ yi nga xamante ni mboolem waañ yi nga xamante ni it séddale nañ ko ci biir dëkk bi bu ñu toggee indi fii la ñuy indi kon nees tuuti kon ñu dikkaat ak yéen suñu yeneen élément wasalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu rahmanu abli jamil il xalqi rahmataman دنياني ثرما قران الخراء أتومة المصطفى عن كل مفسدة وتلامي خلق يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جل الخوادين غرام جميع الورى يا عدي ردا ما أتما قدنا والقلب من درر بجاي أفضل من لا خد لجا سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين وعلى رب العالمين. ndax at mañ ko na sëñ am sa moom ñooñu ko jógal ko bis li tax nag wax ju dama dër moo tax waaye keroog bañ bañ ko sàkkoo yàlla jaar ko ci sëñ am sa dafa woo alaaj sekk sama doom ma ñëw ma ànd ak sama waa toogu ko benn ak ñaari at toog naa ma sama waa kër fii ci daara ji jëfu sëñ Touba ngay xam fu tawaay bi ñu xam fu ma ñam moo tax tey bi ma ñëwee fekk fi mbooloo mi ma xam ne lépp sëñ Touba nekk si am sa na say am sa daa bëgg maam rek ak xasaayit sëñ Touba yi topp alxuraan moo tax maam céré la ko lii ne woon naa nag liggéey bi may liggéey du ma rajo du ma ci télé maam jaara xam na xam naa sëñ Touba xam na waaye nag bu si xasida yi moom il faut danaa ci wax ñaari kàddu ñu ñaan sa ñam sa Touba gi yàgg fi te wér ak njaboot ak sëñ Touba ak njabootu maam Cheikh Rafal gi ak taalibe yeeg xadi yeeg am di jàmm yi ak ñaaxal su bis bu ñëwee ñu bàyyi seen i kër ànd ak man sama kër ñaar fan toog ko mu ànd ak ñoom ñu ñoo di maa ngi sant di la gërëm yow miit keroog ba nga fa njëkkee ñëw nga nuyoog man Cheikh Gueye dafa daan fanaan ñu togg boobaak léegi ñu koy mis fi di ko indi yow it maa ngi lay ñaanal fan bu gudd baa ak rajo bii nga àndal ak ki may filmé moom itam yàlla may ko fan bu ku fi ñëw daal am nga yëg-yëg boo xam ni sëñ Tuubaa rek moo la ko mën a seet waaw Baye Fall Maam Jaara loolu li ñu taw bi Baye Maam Jaara nag ah ne woon naa ko ndaa ci laal dama toog bisu alxemes fekk sëñ Jamil soxna Jamilum sëñ Baara moo ma woo ma jóg mu ni dama koo neex ni ma soxna mooy moom Serigne Touba jox na ma ndigalal nga liggéey la maam jaar bin na la ci kay ba ma nak mom ñaari at al ma ci top ma tok sama garab gi ci sama buntu ko tok melni ni am lu may wote daayira mam jaar ma wote daayira maam jaar bi ma ade je ma njëkkañ du ma ko wax yalla dogal seigne mustapha basirou di wax ci radio yi ni soxna jaar koy wutal ke da ko koy ba nopi soko wuté porxan foko def yalo na fa ma jóge fi dem Espagne di jaayi jémbe jaayi bay wañu ko dem benn romb benn euh, épicerie du jaay ganaar man de maam jaar ganaar yi nag mu ne fanweer la jar ma ne ko bu may dem danaa ci jënd jënd ca téeméeri ganaar ak juróom fukk ba ci aéroport aéroport ba naqari ma sotti yére ya jël ganaar ya leem ko ca walis wa ak carton duwaañ bu ko dégg da nga xam ne loolu dëgg ma ñëw aéroport ñu soxla ci nekk ci kees ah, walis ma ne ganaar kees ma ne ganaar mu nu jëleen walis bu defee ganaar kees ma taw ma boolee ganaar yi ak addiyee jox ko suñu faaw ni ko ma ne mbàkk su ma demee bitim réew damay teg sama rig mu laaj addiye maam jaar mu dama la jox dara ngay bàyyi faalu maam jaar lu jawriñ maam jaar bi mën di bàyyi faal baal faay bu so nan daal ma laxasu mën ma yaay bàyyi faalu maam jaar lii mën jaar waaye li ci des nag moom nan ko tënk du ma ko tudd tàmbali moom danaa ko tudd